salaamaaleykum suñu mbokk internet yu Dakar nag dañuy kontaan bu baax a baax ci topp bi ngeen ñi topp ginnaaw mbir mu tiis bi dalee ci askanu euh, làmb ki nga xamante ni moom mooy Alioune Camara ñu gën koo xam si booy Bambara génn àdduna démb ci ajuma bi bi boor yu 19h bi mu jotee. tey nag ci samedi bi ñu war ko jébbal suñu borom ñu ñëw fii ci dëj bi wala jël ay témoignages wala jël li nga xamante ni euh, famille bi nan la dundee bës bi euh, dinañ dem tamit ki nga xamante ni mooy doomam. Tafa boobu bambara dinañ ci dem mais doomam bu góor également dinañ waxtaan ak moom dinañ jël tamit ay àndandoom ñi nga xamante ni ñoom la doon àndal di bëre ñu dem jël léegi léegi témoignage waaw métti na ma bu nekkoon sama bàyyi du bougé ndax amuñu kenn moom lañ dese moo suñu baay maag sama rak Sifi Camara moo ñuy xelal du woog sama rak bu jigéen te booy bambara dafa nekk baay boo xam ne baay bu jefe baay boo xam ne day woo sa doom di ko séyal di waaye doom na ko bul ñëw kii démb daa fipp ñëw ba mu ñëwee ba ma ko gisee sama yaram daa daw ma ne ko maa ko la woo mu ne lu ma yëg sama yaram tàgguma kenn mu jógee Gàmbi di taaw yëpp di doomu booy bambara ñëw te yëgul te sa mbab mu mujjee waxal mu koy ñaanal kon ñun ñàkkuñu tey Sénégal a ñàkk waaw di ñaanal ah, di ñaanal encore madame Faye Sall ko fay ministre sport mënuñu ko fay ak lu làmb ji kuy takk ngemb di ancien couloir mënuñu la fay ba sama bàyyi maa nga dë ndax moom booy bambara la ancien couloir yëpp sama bàyyi dubales ndax sama ba mu gaañoo ndax ah, sama ba mu gaañoo kenn laaj njëkk a gis jour laa jour laa ko njëkk a tëg bët muy sama baay dubales ak sama baay tubaabu jor loolu yëpp dañuy ñaan yàlla suñu baay tubaabu jor fii mu tëdd yàlla ko gënal mu jógee di ñaan suñu baaba Mor mu mu nekk yàlla ko gënal fi mu jógee di ñaan suñu baay yëpp jiitu suñu baay ji mu fi fekk leen fekki tey yàlla na leen gënal fu ñu juge ñun nag am ñu ñu ñu fay kenn. keroog bi nga xamee ni dubales ñëw na waa Fass la àndal booba sax pour dubales duñ ko wax ñenn ñaa ngi naan saselon ñii naa njool màkk foofu la Double Less jëkk ñëwee man jamono yooyu maa yore drapeau bi ñu décoré ma fa mu bëre fa ak Pape Diop ak Alioune Ndiaye ñu décoré ma keroog bi Double Less ñëwee dama leen kii du ma bëre moom man damay mboot te moom mu sut keroog Double Less foofee la jëkk bëree ak Robert Diouf ku xam làmb la na nga laajte foofu la ñu jëkk a bëree ci mbapat mu bëre fa ak booy bambara booy bambara du ko wër ndombo foo ne def na ko fa du ba les sëpp loxo loolu maa ko teewe booy bambara doomu ndey la xarit la wëllale la euh, am ku baax la ku sopp ak njabootam bëggan ak njabootam lépp al mu amaan rek mu ngi si këram mboolem ko mu doon àndal bu waxtu lekk jotee du bëgg nga dem fenn ku ci nekk yaa ngi sa kër yaa ngi liggéey waaye sambi ak dimaas nooy bokk benn place bu ñu nekk léeg-léeg ñoo nga kër Lamine Camara léeg ñoo nga kër Koro Diop ah, ak Cheikh Tambidou groupe boobu dafa bari woon booba Mayacine Gueye ngi fi ak seex Seck ak Sandiambour ak ku ñuy wax Naaru Pikine booba ah ñooñu ñoo fi newoon ñoom ñëpp ci mbapatum booy bambara li ñu feeñe ci usine benn tali. lan moo la gën a marqué ci moom. booy li ma gën a marqué ci moom mooy booy dafa bëgg mbokk mbokkam bëgg ay waajuram booy daawul fanaan àll. booy fu làmb paree ñibbisi na mu ngi ci këram lu mu amaan rek da ko daan joxe joxe ci all uh, àll bi ba mu jeex. waaw tiis bi moom bett nañu lool man moom daf ma bett lool parce que dama liggéey wàcc bi ma ñëwee après sama copain bi woo ma Omar ne ma ah Tafa mun naa mun a ma am na lu xew de ma ne ko mbaa jàmm mu ne ma ah paa bi de moom mujj a noppalu. ma ne ko kan dama mujj fàtte naa sax ma ne ko kan mu ne ma booy bambara ma ne ko ah loolu loolu loolu est-ce que kii na mu ne ma Sophie moo woo Buzz mu waxoo ko quoi après ci la Buzz ñëwee sama kër wax ma quoi waaw ñuy wax ni dañuy wax alhamdulilahi rabil alamin di sant yàlla jull ci yonent bi daal parce que comme moom moo ñu ko joxoon moo ko bu yàlla soxlaa moom jaam ñàkk waaw ñu ñaan yàlla rek yàlla xaare ko àjjana dugal ko ci àjjana yi gën a kawe daal waaw xam nga ni yow ñëpp xamee na lañ ko bañ na ko da nga ko jël tudde ko sa bopp ñu lay woowee Tafa Boy Bambara alors tey euh, feebar bi xaw na yàgg est-ce que jàpp nga ni milieu wu làmb bi nga xamante ni moom ngeen bokk ñëpp est que taxaw bi ci war est-ce que jàpp nga ni milieu làmb bi taxawaan taxaw na taxawaay boobu. Mm-hmm. waaw xam nga euh, milieu làmb moom ñu ngi kii mais mënuñu def lépp mënuñu def lépp waaw mais ñoom ñëpp ñu ngi ci doon bay seen waar kenn ku ci nekk yaa ngi ci doon bay sa waar. waaw parce que làmb moom daanaka boo ci nekkee boo ci génnee tolof tolof yi day bari te foofu day laaj taxaw foofu moo ëpp taxaw nii nii rek nii nii commencement bi nii xam nga day neex mais mujjanteel bi dañuy ñaan yàlla tamit xam nga yàlla dañu suturaal ko waaw. soo amee loo xamante ni marqué na la ci euh, Boy Bambara lan la loo xamante ni saa yu ñëwee sa xel rek tiis bi day. xaw a diis maa ngi si jégalu si laaj bi sax waaye lan la lan lan moo loo gën a marke si waaw moom maanaam man moom li ma gën a marqué ci moom waaw li li ma li ma gën a marqué ci moom dafa li ma gën a marqué ci moom dafa nekkoon koo xam ne ku ñu bëggoon la ñun ñun ñun ñun kii amul moom amuloon xajal seen ak kenn. moom ku ñëw rek da ngay yaakaar ni yow yow la gën a bëgg waaw loolu gën moom a gën a marqué ci moom daal. Talibe Cheikh ñu ngi lay nuyu di la ziar. ah ñu ngi leen koy delloo di wax rek ne inna lillahi wa inna ilayhi di sant yàlla suñu boroom di jull ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam di bokk tiis bi nga xamante ni ah moom lañu suñu boroom wàcce ci Boy Bambara. mu nekkoon suñu papa joo xamante ni e ñun mënuñu koo fàtte fii duniyaa uxra e di ko ñaanal itam yàlla daje njëggul suñu borom bi e fa mu féete woon jaamu yàlla yi ci lu baax yàlla na ko fa suñu borom féete di ko ñaanal it yàlla la bu ko ca jiitu ci bàmmeelam e di jaale axlu làmb yëpp ndax làmb benn benn bànqaas bu ci damm rek mën nañu wax ne ah ñëpp lay laal tey fu mu toll nii actuellement nii ah, wax dëgg yàlla metti na nag waaye dañuy jëlaat lépp delloo ko suñu borom xam ni suñu borom moom mooy aji tege te bu la tegee wax dëgg yàlla boo ko muñee rek lépp ay daal di woyof. xam nga nit moom ah wax dëgg yàlla ah, booy Bambara waxuñu ne ah, amul taxaw. ndax itam am na tuuti taxaw ci ñi nga xamante ni mooy ay am di jàmmam ak ñi nga xamante ni seqoon naag ñoom àddina kon wax dëgg yàlla ñooñu def nañ li mën waaye booy bambara comme ni nga ko waxee su nañu sukkandiku ci loolu rek que liggéeyal na réew mi drapeau bu nekk mu indil ko réew mi kon tey bu ku mel ni booy bambara su demee ba feebar bi jéggi doyo et eh, ñu dem ba di ko publier ci télévision yi kon jàppale bi encore une fois des na ndax bu ñu demee ba publier rek wax dëgg yàlla ah da wóor ne bu fekkoon ne jàppale bu matu la matuwaay yi am na dëgg dëgg dëgg ndax am na jàppale yoo xamante ni force rek ah li ñuy wax ne état moo ci gën a war a mën a xuus te comme yàlla dogal na suñu baay yi mel nii nga xam ne ñooy magu démb ibbi lépp a ah nga xam ni tey bu ñu demee ba ñun ñu ñëw ñeme dañuy fekk ne macha allah ñoom ñoo ko ñoom ñoo ci liggéey liñ ci war a liggéey kon encore une fois du booy bambara kese am na ñeneen ñoo xam ne tëdd nañu ñu ñemeen ñoo xam ne tëdd nañu ku mel ni mbay gi macha allah yaram su tënt ne ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne mënuñu leen a mënuñu leen lim te kon bu ñu demee mag ba yenn anciens lutteurs yi ñu leen di publier ci télévision yi ne lu ci waay am na nga leen dimbale a ah kon loolu yaakaar naa ni jàppale des na. Eh, mu doon lu tiis waaye nag di wàcc fu nekk ndax yàlla dee la jëkk bind door bind dund waaye ñu xam ni itam wàcc na ci koo xam ne kii nit ku gore ku baax. ku masa a bari jàmm te li ñu liyee ñu bokkoon ko di ko def amoon na ci ngor ak fayda amoon na ci taxawaay ak yëg-yëg te itam jant la ci woon du woon biddiw waaye jant la ci woon ndaxte liñ daan xëccoo lépp yàlla mas na dogal ci senegal quatre yi fi amoon yëpp cumulé woon na ko te mus koo tax beew ndax nit la woon koo xam ne kii li mu mënoon daf ko man ba pare téye ko rek comme po waaw parce que dañ ko doon foye au départ léegi la ci yàlla def barke ak valeur ndax seen taxawaay ak seen nekkin ak seen yar bi nga xam ne moom lañuy dundee ak àdduna moo indi sutura bi nga xam ne tey mbëri tey yi ci la leen yàlla yiir. Eh, alors moom nga xamante ni comme yéen ñaar yéen a bokkoon génération loolu lan moo leen gën a marqué ci moom ci dundam. li ma gënoon marqué ci dundam mooy li ñu doon def manoon na ko lool appi musu cee mer te itam eh, jafeñ-jafeñ bu ko ci daw itam dafay ree ndax day xam ni bu ëllëgee rek mu am ci bànneex ndax ku mënoon li muy def la xam nga moom moo taxawu boppam ndax dafa séddoon ñëpp jàmm amoon na ñëpp jàmm kon il faut yàlla eh, def ci xelu nit ñi ak jikkooy nit ñi ñu am ci taxawaay boo xam ne bii day rafet ndaxte moom loolu la mérito parce que amul ku mu lebal lu ñaaw wala lu bon taxawaay bi ñëw nañ fi ñun ay yoon yoon ànd ak le président mang am na ci jamono bi moom ak Pape Kane ñoo jamono ñoo feebarandoo woon sax ba ñu ñëw séddaloon nañ leen xaalis kenn ku ñëw la première set bi ñu indi leen kenn ku nekk ñeen fukki junni pour nga mën a préparer sa bopp daloon na bay gay aussi alors. biñ demee ba mu yàggaat Mbaye Guèye ci boppam daal di yëkkati làmmiñam daal ni nag ñun war nañoo taxaw dal di seet président Manga pour di ñuy jàppale waat booy bambara mu am lu ñu génnewaat som booba nag jotuma koo xàmmee waaye romban na cent mille sama doomu baay ñoo xam ne suñu papa ak seen papa ñoo bokk benn bàyyi xoola ñëpp muy góor di jigéen duñ ko déggee kenn toogul ñoom ñëpp a ñëw taxaw waaw ñoo xam ne famille Pape Camara waaw ñu ngi leen sant di sant suñu chef de di kat Pa ndax ku xam booy bambara xam nga Pape Mayoro Seck ku xam booy bambara xam nga waa ñaari tali booy bambara amul kenn ku du ñaari tali kon nag lii tey nag maanaam lii moo dal suñu kaw ñu koy sante yàlla waa nag ñun métti nañ trop wax na ñun yéen la ñu yërëm yéen Sénégal ndax luñ fu ma tourné am na ñu bëri xamuñu ma dañu kii kii doomu booy bambara dafa booy bambara dañu xam ndax dafa booy bambara man maa tax dafa booy bambara génn man mii toog nii maa tax dafa booy bambara génn maa ngi daan Gris Bordeaux samedi digg mbapat ma sa mbapat dama feebaroon su papa ne bu bëree ma rey la ma daan ko su papa ne su la mbéy nga jug nangam jur laa tafaa mu ne ma naa ma jël mi ko kii mooy tafaa booy bambara ñoom it ñu def lu rafet di gërëm caat di gërëm caat caat bu Grand Dakar écurie Grand Dakar doomu booy bambara la lu mu am defal na ko bàyyam lu mu am defal na ko bàyyam di gërëm suñu yaay yi toog si biir néeg bi mu mu ne ceng daa jaamu borom këram ba borom këram ñaanal ko guddeeg bëccëg muy guddi di bëccëg fajar man moom may gis nii bu ma dugg si kër gi moom maire bi si boppam tëdd maa ngi fi ak suma jabar du ñaanal sama jabar man sama jabar du koy ñaanal ndax jabar jabar baax na waaye jabar bu mel ni moom ko man man may mun na sama may mun a gisuma ko mel ni moom